وللنازم حيدا سار الله فيدا وشفاء يا من يوم دفع كل داء فلا دفاع من لب الشفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki Taïf maa ngi leen di nuyu bokki Touba bokki Sénégal di leen siyaare ci weer wu tedd wi man nag maay Serigne Fall Eh, di taalube serigne mustapha Mbacke Muhammad dekk fi Taif taif bi fi la nek ni may waxe yeen fi la dekk fi la juddo wa fi li may ñaan itam fi la koy defee maa ngi ko don itam ci sama baay sama bay mi ngi ko doon ci ay euh garabu ciosan yi ma yor mi ngi joge ci major ñew ba ci lat ndumbe ñew ba ci jo ngone ba jaan de nga wacc ba ci Ibra Code Fall wacc ba ci Mat Fall wacc ba ci man lolu moy major ndono la waaw moy muy walu ñaan bagage yi nga xamanteni mom lay jëfëndiko nak di ci ñaan mi ngi joggé ci major yalla dogal muy dox di dox di dox ba aks ci man ah ñaan nak man nañ ni eh, duñ ko dond ndax dañ ko wara jang waaw so bàyyi nek na docteur taxul nga nek docteur da wara fek na nga jang ba nek docteur waye nak alhamdullilah rabbil alamin ah yalla dogal na fi ma ci wara jaar jaar na ko ci ci walu jang ko ba nga xamanteni dal ah, xajna lu ci yalla may nit daal ah, may na mako ci ci walu ñaan ah, ma ngi tàmbulee ci ben téré bu ñuy wax rugikul rugikul sama mam da ko daan tak daan xare ji daraan tak téere bi moom kese ruggi galaaj gi mu yor bàyyi ko ci kër gi dem xare ji une semaine dellu si waat téere boobu tey ñaari junni nit bu ñu la liggéeyoon mm, boo ko takkee ci bis bi ñaari junni liggéey yépp ñooy dañ waaw téere bi boo ko takkoon tey nga wàcc ci dong sa soxna di la andil añ wala nga am ab yàq bu ci ab liggéey nekkee bu ñëwee ba fa ba jàkkaarloog yow day fakastalu ànd ak bool bi daanu dégg nga bi boo ko takkoon tey bu yàlla dogaloon nga ak nit tay, mu wuti police wala gendarmerie bala ag auto man nako fiir wala saret wala mu am lo xamante dana ko galankor téere bi ko yor lepp lo xamante way yene na la ko ci lu bon day del wacc mom téere baangi ni mom lañu wax rugikul ah ci ciosan ñang ko daan ko teungu nak wala saxu ñett eh, wala fukki junni moko ko daan weccee ko mom téere baa ngi nii mooy dong la bour daan tak dem xare ji dellu siwaat téere bi nag mi ngi jóge ci maajoor mboolem koo xamante ne nag sëtoo nga ci maam maajoor xam nga ni ruggikul moom ah yàlla ah, joxoon na ko ko yàlla dogal na nag mi ngi dox nag ba agsi na ci samay loxo ah ma ci maajoor waaw même ku bokk ci maajoor boo ko laajee dana téere baa ngi sëriñ Fall wala mu ni téere bi am na waaye xawma fu mu nekk waaw ba tey ci wàllu cosaan ba téere bi batay cewa ci walu ciosan bi téré bi mom lañuy wax euh randu len ma tok dafa nek bayre nek tul boko také lepp luy gañé du la mëna gañ auto sarret sareet paaka yat fetal accident daanu ci ten jandu la mat de nga euh, ba paré di nga am bo ci auto tay mara dem si mu auto bi kep fukk yoon xamna do gis sa képp koo xamante ni takk na ko daal du gis tere itam ba tey lii ci bagage maam yi la muy cëwri yi ñu koy wax raamaan raamaan mooy cëwri yi nga xamante ni eh, képp koo xamante ni yàlla dogal na nga takk ko eh, tëreerut man ngaa am ak moom téeméeri at waaw day tax fan ku ko takk takk yukkat lañ ko tuddee moom la ñuy wax raamaan waaw ba ci gàllaaji maam yi am na ndomba waaw kay ba ndomba yaa ci galaj mam yi itam ndomba ciosan la ndomba gi itam kep ko xamanteni nek nga ci jafe-jafe dal ak jafe-jafe bu mu meuna doon ah boo ko allah jafe boobu jafe-jafe boba da nga ci euh ah, donte da nga waroon jëm tribunal sax wala nga yakane tay do mucci dal bobu da nga takul ndomba gi ndomba gi dal mi ngi tuddu dal tak mucci bu yalla dogalé dal nga am ko tak ñet gaw yi yépp inshallah allah te dugg ci mbir lu mbir ma tar tar tar inshallah di nga ci waaw ba tey ci wàllu càngaay ñi ngi defar ay càngaay yu mag yoo xamante ni gis nga lii cangaay la bu ñuy liggéey ñu koy wax ab taaru sahri fii lañ koy liggéeyee gis nga moom fii lañ koy liggéeyee gis nga càngaay bii day ànd ak fukki garab ak ñeent bu pare fukki garab ak ñeent la càngaay bi di àndal cangaay bi boo ko songoo woon tey nit ñi ak guiné yi ak saytane yi yëpp àndandoo di la ak seeni soldat duñ la manal dara tay téré bi tay bu ko président sango won tay Sénégal gépp and genn wàll gi and ak mom genn wàll gi contre ko genn wàll gi nga xamanteni moko contre yalla day depp seen bir téré bi ku ko takkon bo duggoon ci ay xérem yu melni xérem yi na ci bis bi la xérem yi di yàqu téré bi boko takkon tay. Eh, lepp lo xamanteni yang koy wut ah ak lu mu mën doon nga bëgg soxal muy walu wërseuk wala muy wàllu nit dabu muy buntu yu yëpp na la ko ubbil na la tejeel itam buntu yo xamanteni buntu ay la téré bi nga sangoko mo lay musal dila musal ba ci der bi ngay tok ci sa bir nek ah di julli lor ja ci mëna joggé jóge eh, yalla dafa dogal téré bi dala ci musal téere bii bu yag la eh, bo démé ci tarjumaan ji mi ngi ciy wax naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bi mu nekkee Makka ba war faa jóge war a dem Madina euh, waa Makka doon ko jéem a rey ci seen maam ak seen mi baay téere bii la ko Jibril indi woon mu sangoo ko ci la génnee dem Madina taxawal lislaam boo wax alhamdulilah moom mooy téere bii moom kenn xamul lu mu doon yeneen càngaay yi bii mooy isa wàqati bi temeri isaa wàqati la waaw dégg bi bii itam képp koo xamante ni yaa ngi nekk ci place di liggéey ca ngay la bo xamanteni ni nekkon ci place di liggéey ya xam place bu mu meuna don ñu def sa tour ci biir téeméeri juroom ñaar téeméeri yoon nak lañuy ñuy sa tour euh yu top waye bu yalla dogalon tay nga wut ndoxum geej boole ko mom def ko ci pan nga sangu ci ba pare jël ndox mi delawat geej nga nek ci place do nonu député bo don saga président assemblée dula mëna dakk bo don ministère bo don saga président dula mëna dakk bo don chauffeur bo don saga sa patron dula mëna dakk ki amna ño xamanteni amna sédé ñu dakk leen ci place liggéey bañ ñëwé ci man bama leen ko dama leen dem leen liggéey dañoo dem liggéey ba ngon jot ñu wo ma ni ma sëriñ mu ni mu wo ma ni ma sëriñ Fall ñi jamm lañ ma may ci walu faj ki itam garab la go garab bu yeme la euh, maa ko liggey sunguf la bo xamante day faj tank yu metti day faj ndiglu yu metti day faj bëñ day faj prostate ak lu mbolam lu xeet sawukaay de nga euh, day faj bopp yu metti day faj ndiglu yu metti wala tank yu metti mboolem luy metti ci nit daal li ci gën a bari da koy faj te liñ ko liggéeyee lépp lu ñuy lekk la lépp lu ñuy lekk lañ ko liggéeyee sunguf la waaye amul xas amul reen amul xob dégg nga ñàkk lekk ñàkk nelaw néew kàttan ci góor yi yëpp dégg nga garab bii da koy faj bii itam day faj émorite bii boo ci amee ñetti bouteille moom itam moo gën a gaaw ci émorite amul kenn koo xamante ni dana jëfandikoo lu mat ñetti bouteille incha allah te Emory itam incha allah jeexul tàkk waaw bi itam mi ngi ci ndoxum siti ndoxum siti moom itam garab yi moo ci gën a aay moom itam yëpp ñu ngi fii ci tay fii lañ koy liggéeyee waaw yii daal bokk na ci garab yi nga xamante ni moom laa lay wane rek ndax yu baree baree fi nekk waaye yii daal moo fi war a nekk xanaa yi ci des nag ay affaire u mocc ak ay xeet ak ñaan ak yeneen ñaan yeneen façon ñaan yi am na léegi ci wàllu mocc bu fekkente ni woon tey da nga nga indi fi bëñ buy metti juróomi minute laa lay may yow yaa mën a ba bëñ bi sedd na damay ñaan mocc ko ba mu sedd dégg damay mocc bëñ euh, damay mocci waayi saan damay mocci enzyme damay mocci xeeti neew yi neew yi yëpp loo xam ne daa jekki-jekki neewil boppam rek yooyu yëpp dama koy mocc même wànnent itam dama koy mocc bopp yu metti ak xeet yu baree bari dama koy mocc ndigg ndigg luy metti kasaalika lu mel ni ndigg dama koy mocc mu sedd ci juróomi minute lu mel ni bëñ dama koy mocc mu sedd ci juróomi minute ansim ku ma ko fasal fa lay yem waaye saan ku ma ko fasal fa lay yem taab ku ma ko fasal fa lay yem yeneen ak yeneen ak yeneen ci gàttal nag kenn ku fi mas a ñëw ñaari yoon mboolem ñi may dégg kenn ku fi mas a ñëw ñaari yoon ci mocc amut képp koo xamante ni moccal naa la benn yoon rek di nga am sa mocc yi di nga am jeex na am na yeneen yi nga xamante ni itam na des na ndax bagage yi mënumaa génne yépp Euh, am na ay fas yoo xamante ne kuy tuur ndox euh, maanaam ku dem ba nekk mag bu ñu koy wax nag gone taxut ku dem ba nekk mag ba pare du tuur boo tëddee guddi di tuur ndox ah boobu yooyu itam dañ ciy def ñaan dañuy def bayre njaay itam bayre boo xamante ni tey bayre bi boo ko doon essin tey da ngay dem takk da nga koy def ba pare rek nga dem takk ko ci garab da gis picc yëpp dajaloo ci garab googu di nga am bàyyi garab yi ca des maam yii daal euh, gudd gàtt affaire yi bañ a gudd mooy li nga xamante ni moom laa leen bëggoon a présenté képp koo ci xamante ni bëgg na nag booye boo mu woote numéro téléphone baa ngoog 77 643 40 88 maa ngi fii daal di liggéeyal sëñ bi damaa bëgg nag ñëpp mucc rek lépp dama koy yombal damay dimbale doomu aadama yi rek damay dimbalee rek waaw lépp dama koy yombal rek waaw ku fi ñëw daal bu soobee yàlla aay joo fi andi bu soobee yàlla dinaa jéem a fexe di am ba def ci la ma mën ci kat nag suñu borom